Grand combat, grand combat. Grand combat, grand combat. Sokhouboundou face à Talfa. Aujourd'hui, samedi 17 novembre, 17 décembre, autant pour moi. Aujourd'hui, samedi 17 décembre 2022, mesdames et messieurs, on est à l'arène nationale, le promoteur Moudou Baïfal à la tête de la structure. Mon production est passé par là. Grand combat, grand combat. Sokhouboundou écurie Pikine va Baldé face à Talfa de l'équipe de Dordorat. c'est l'arbitre ne va pas tarder à donner le coup de sifflet. Le coup d'envoi du combat qui doit les opposer. Talfa, prêt, Boudan, prêt. Mais c'est l'arbitre va donner le coup d'envoi. Grand combat, grand combat, le derby. Parcel Pékin. Le derby Pékin Parcel. Sokou Bounaou, petit frère de Jetli, petit frère de Sokou. Alpha neveu. Alpha le neveu de Gorosok. Un combat qui promet, qui promet des étincelles, puisqu'il oppose au deuxième espoir, pétri de talent. Sokouboundaou reste une lancée exceptionnelle de 5 victoires d'affilée avec une seule défaite. Il a coupé les îles. Lors de sa première sortie, c'était pas à fils de max. Depuis lors jusqu'à présent, il enchaîne les victoires. Pendant ce temps, son adversaire reste invaincu jusqu'à présent. Talfa, invaincu jusqu'à présent, avec un palmarès de 5 combats, 5 victoires. 4 canons pour moi, mesdames et messieurs. mais c'est l'arbitre va donner le coup d'envoi du combat. Waouh, waouh, léegi léegi léegi léegi arbitre bi sifflé seen diggante sox bu ndaw pare na Talfa pare na ndam li fu mu jëm sama gaay yi sox bu ndaw moo recevoir à domicile waaw moo dem bëri ja à waaye ndam li fu mu jëm sama gaay day des Pikine wala day dem Parcelles Blindé nee na ma ndam li Parcelles la jëm Blindé borom kaawu yi nee na Matar Ba day daan soq bu ndaw waaye waa Pikine taxawee gëm nañu soq bu ndaw daan Talfa yàggatul léegi at bi sifflé génn seen diggante yàggatul dara Talfa soq bu ndaw. waaw waaw dem na wax ak puleewam Jules Balde moom ngay seen noonu dem na wax ak kii di soq bu na génn seen diggante arbitre bi génn seen diggante sox bu daw attention Talfa attention Talfa attention Talfa wër na ko ndomba Talfa wër na ko ndomba Talfa wër na ndomba kii di sox bu daw attention war na ko daan attention waaw waaw waaw waaw waaw waaw paa bi waaw waaw sox bu ndaw waaw waaw sox bu ndaw sox bu ndaw Talfa Talfa sox bu ndaw bëree nañu bëre nañu bëre attention mbot ma mbot ma woo Talfa daan na ko Talfa daan na ko Talfa daan na ko Talfa daan na ko waaw waaw Talfa Talfa Talfa daan na ko coup de tonnerre mesdames et messieurs coup de tonnerre à l'arène nationale Talfa daan ko ndeysaan tey le premier a soog jarbaatam daan na Talfa daan na Sokh bu ndaw jël bi rey na jël bi leer na jël bi amul benn wérante tey le sama gars ndam li dem na parcelle ndam li dem na parcelle ndam li ko Alpha daan na Sokh bu ndaw ndam ni dem na parcel waw waw na ko Talfa na bu ndaw waw waw coup de tonnerre mesdames et messieurs coup de tonnerre ici à l'arène nationale La la victoire a choisi son camp la victoire a fini par choisir son camp Alpha vient de terrasser de fort belle manière Sokouboundaou. Serpent Alpha vient de le terrasser. La victoire ira au parcelle de Téni. Victoire de Dalfa face à Sokouboundaou. Aujourd'hui, samedi 17 décembre 2022, mesdames et messieurs, on est à l'arène nationale. Victoire de Talfa Victoire de Talfa, sur Sokouboundaou. Une victoire claire et nette qui ne souffle aucune contestation. à Nonou. L'âme dit Djerna. L'âme dit Djerna. L'âme Talfa daan na Sokh bu ndaw